xanaa kontaan rek xam nga lii moom dafa neex quoi déjà genre match bi dañuy am ma parcelle ak ñëpp ñu dëkkul parcelle xam nga ñëw génn ñëw taxaw pour supporter entre Modou ak Waly xam nga boo seetloo fii moom xam nga amul supporter bu Modou Waly xam nga mhm. ñëpp benn lañ mhm. dañu ñëw pour supporter pour seetaan benn spectacle rek xam nga si mhm. ñaan yàlla ñu gañ a faramaale ñu ko incha allah d'accord ci biir loolu ñuy waajal li nga xam ne mooy lu rëy biir si parcelle euh, yéen tamit ku leen ci euh, niñ koy waxatee ku leen ci fekk xam ne yéen yéen a ko moom seen i moomeel la ah, nan nga dundee loolu waaw xanaa contentement rek ndax xam nga affaire yi moom même bu dul dara ñu ko organiser moom xam nga muy Omar Compagne suñu nit la bu baax bu baax xam nga suñu nit la boo xamante ne xam nga suñu jullit bu baax macha allah xam nga ñu ngi koy nuyu di ñaanal af di ko ñaanal affaire moom ci réussite totale xam nga waxatuma rek mu ñëw tamit xam nga jox ko waali mi nga xamante ne tamit suñu mbokk Baye Fall la xam nga dëkk ci dëkk bi waa parcelle namoon ko tamit xam nga mhm. donc lii moom suñu fierté la suñu bis la xam nga di ñaan yàlla di ci woo jeunesse parcelle beeg magu waali yeeyee xam nga di ci woo ñëpp daal ñu ñëw teewee ci xam nga mu nekk benn spectacle bu nice bu jaar yoon mu réussite incha allah nan ngeen ci fas yéene taxawee ku ci mel ni xarañ loo waaw comme comme nit bu frère am xewle rek parce que Omar Omar Moodu moo tax ma xam nga. Uh-huh. xam nga euh, xaritu Moodu la depuis depuis depuis depuis depuis lu yàgg xam nga. Uh-huh. donc moom rek bu xewle woon dañuy ñëw taxaw. Uh-huh. xam nga accompagner ko ci waxatuma laa waali tamit nekk ci xam nga sunu bis la quoi lépp luñ ci mën ci soutien ko def incha allah. ci loolu nag jar temps yi bés bi yéen a ko yor parce que audience euh, palais bi nag dina tukkal réew mi ah, nan nga dundee déjà audience bi balaa ñuy dugg ci détail yi. ni ngeen ko dundee rek laa ko dundee ah. mbégte rek waaw mbégte xam nga parce que ku nekk moom kuy liggéey ku nekk xam nga ñaan nga un jour sa kilifa woo la xam nga encouragé la. moom rek laa ko gisee Macky Sall. bon président Sénégal yëpp la comme ni ñu koy waxee donc bu invité mbëri duñu def lu dul rafetlu ko rek. kontaan kontaan ci trop trop trop. ci biir loolu am nañu kontaan am nañu mer ndax am na ay ñoo xam ne ñu ngi ci biir làmb ji ko doxalee euh, du woon yoon yow nan nga gisee ah, mer ñëpp mënuñu kontaan ba ci fii jotaay bi am nañu kontaan am ñu mer. Mm-hmm. loolu mën a ñàkk ci àdduna la bokk xam nga. Mm-hmm. mais ñi fa dem je pense que comme nañ xam nga te ñu fa jógee tamit xam nga je pense que bu ñu waxee li leen fa yóbbu tey nit ñi nañ kontaan tey kenn déggagul benn version xam nga bu weesoo xam nga fël bi ñu gis euh, astaghfirullah euh, bi ñu gis loolu rek la ñu gis xam donc kenn mënagul xam lu ñu fa jëlee ah man de déggaguma ko xam nga donc bu ñu waxagul nañ leen déglu xam nga te xam naa ne foofu moom njariñ rek la ñu fa jëlee mais gars yi nee nañ moitié milliard bi ñu leen jox moo waroon bàkk yu rëy yi mais loolu buñ ko jotee peut être ñoom lu ñu war a jot la isalma la te duñ ko jotee ñoom duñ ko jot pour ñoom kese buñ ko mm-hmm. joxoon ko jotoon tamit dinañ ko ñu ñu ko war a def pour mu jaar yoon dinañ ko def donc nit ñi def ndànk rek te ñu bàyyi di juger mm-hmm. yow buñ la woo woowee boo demul yow demuloo mais keneen dem na maandu ci nga bàyyi ko mu dem. parce que moom nekk sa gis-gis quoi. Mhm. xam nga bu kenn jugé kenn. mais ñeneen ñi dañoo ne da ko def benn lobby rek. benn lobby rek lobby rek maanaam les lutteurs en activité ah, ñenn ñi ñoo dem. je pense pas que ne lobby la parce que dégg nga xam ni mu ko waxee. guy gi dégg naa woo nañ xam nga tey mënoo dajal ñëpp sax kenn mënul dajal. d'accord Excusez-moi.